waaw jërëjëf membran waaw mauvaise haleine moom ni muy manifesté woo euh, xet bu naqadi rek di wax ak ay nit nit ñooñu di dem dëmmooyu di la wan ginnaaw ngay wax ak nit muy tëfli ngay wax ak nit da santé ni nit yaa ngi koy déranger mu jël yëre yéreem taf ci bakkanam wala tax ci gémminam nga xam ni kii vraiment euh, am na odeur buy manifesté wu dafay dem ba yàq seen àddina dootuñu mën dem ci xew dootuñu mën dem ci mbooloo ñenn ñi yàq na seen sëy ñi yàq na sax seen liggéey am ñoom tamit dañu amoon relation lool ak doomu yi di nekk nit ñi di jaay di business nekk doomu aadama yi nit ñi bëgg leen ñu bëgg mais dem na ba mënatuñoo ñeme sax dugg ci biir nit ñi fu ñu toog rek xet bi dafa leen di déranger dañ koy sentir am na ci ñenn ñi nga xam te ne sax dañuy dem ba ci barabu hôpital yi wala yenn structures yi mais dañ leen di jàppee dof dañ naan yow rek yaa koy xencu te fekk dafa laaj une diagnostic dafa laaj une bonne diagnostic bi nga xamante ni yow aji fajkat bi soo amul temps malade amoo ci moom yërmande toogoo dégluwoo ko xooluloo ko wala maladie bi malade dafay bëgg di wax rek te du def consultation bu approfondie parce que yenn feebar yi boo ko amee pour mu am résultat il faut faire une bonne diagnostic bi nga xam te ne dafay approfondir ndax diagnostic bi soo ko approfondiree li la war yow malade bi def ko kii fajit li ko war mu def ko kenn ku ci nekk da nga am sa waar fajkat bi dafa war a déglu malaatam malade bi itam warul def automédication maanaam déglu jël garab yi baax na barab baax il faut ngeen seet ay spécialistes ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci loolu malade bu nekk wala façon malade bu nekk ñun gis nañ ko

li jéggulu si gëj a déggante bi de dama nekkatul si kaam nag Kaolack laay sëy moo tax nga gëj maa dégg maa ngi sëy Kaolack dafa fàttalikoo si kooru daaw lu tombé loon de kooru daaw la wax naan man lii est ndax far bëgguma koo am <laughs> ndeysaan nga ñaanal mu naan ma bu neexee yàlla kooru déwén di nga am koo taajandoo suñu borom nangu na sa ñaan de wax dëgg yàlla naa ko suñu borom nangu na sa ñaan wax dëgg yàlla maa ngi nii Kaolack laay sëy moo tax sax nga gëj maa gis foofu. mais moom traitement bi moom wax dëgg yàlla macha allah dam lay sant di la gërëm ndaxte métitu biir bi moo ma gënoon sonal sax que sama mauvaise haleine bi métitu biir bi mais depuis na may jox garab yi may naan def traitement bi normal ak surtout paj yeeg yooyu sax wax dëgg yàlla moom gis naa si tan bu baax a baax mais incha allah nii maa ngi nii kaw ndaxte dama nekk nii en sax dama nekk jigéen bu wéru mais bis bu ma yàlla may omi sedd moom ba mu ñëwaat Sicap ba mu ñëw Dakar bu neexee yàlla dinaa def la tout ba ñëw fa incha allah bu mu fàtte si ñaan jërëjëfaay jéggul nag si gëj a bi di bu wér a wér a wér ñaan nangu nag xam nga jëkkër rek moom <laughs> bu xasee am moom yu bëri dootoo ko lii ñaan ngeen nangu ba pare damaa gis tan rek nga xam naa ne bu ma affaire sonaloon ba léegi chaque jour nga ne ma naam daraame est-ce que kon sax su boobaa dinaa am jëkkër <laughs>

mën na nekk ay infection wala ay bactéries wala ay microbes ñi nga xamante ne nit ki da koy am ci gémminam ci plaque dentaire yi ak surtout ci infection yi nga xamante ni dafay nekk ci biiram wala infection yi nga xamante ne dafay nekk ci put bi loolu nag euh, la majorité ci ñi nga xamante ne dañuy am mauvaise aleen bu nga xamante ni bu ñu demee hôpital mën nañ leen sax def loo pour ñu mën a xam infection yooyu fan la nekk ci ñoom ñu bëri ci ñoom it dañuy dem ci hôpital dem ci dentiste yi jaar fu bare bare bare bare bari waaye il faut qu'un spécialiste en ça te faut dafa laaj un traitement bi nga général parce que mauvaise haleine dafa nekk fièvre bu yaatu feebar bu yato, yato. yaatu yaatu li ko mën waral ci nit dafa bari lool te xam ni ci biir émission bi boo leen ñu dégloo ngeen teewlu ko di ngeen mën comprendre lan moo koy waral deug deug deug dëgg ci doomu adama waaw jërëjëf Mamran euh, mauvaise haleine nak dafa bari trop ay forme comme ni mako waxé légui léegi ñi seen mauvaise haleine ci gémmiñ gi lay joggé ñenn ñi seen mauvaise haleine ci put bi lay joggé mën nañu am amygdale am ñi nga ne dañu am enzyme ci put bi am na ci nga dañu am ay grain yu nekk ci biir put bi bu ñu wasoo ko buñ ko génnee dañu génne ay grain yu weex tàll buñ ko tojee muy mel ne ay doomi ceeb buñ ko tojee muy am xet bi nga xamante ne daal ñoom seen bopp sax du leen neex te yooyu buñ ko gisee ay infection la maanaam dajale na ay bactéries yu bëri ci ñoom ndax am na ñoo xam te ne dañu am poche fii buñ fa lekkee lekk bi dana fa des ñaari fan ba ñetti fan lekk boobu day dem bëri day nëpp di am xet am ñoo xam dañu am ulcère am ñoo xam dañu am estoma am ñoo xamante ni dañu am reflux gastrique œsophagien am ñi nga xamante ni itim dañu am hémorroïde ndoxum siti loolu yëpp dafa bokk ci forme yi nga xamante ni dafay provoquer mauvaise haleine maanaam fu mu mën a jóge ci nit bari na am na ñoo xam te ne xet googu day dem ba nekk seen yaram maanaam day nekk ci seen poqataan bu ñu sangoo sax quelques minutes après rek bu ñu ñaqee xet bi day xeeñ seen suufu tànk yi day xeeñ nañ ma baal am ñoom te ni seen diggante tànk yi ci suuf dañuy gis ni day retax day xóoñ day am xet moom kon xet dafa nekk li nga xamante ni ci nit lu doy waar la da ngay déranger nit ñu bare bare bare bare te nit ñooñu am mauvaise haleine ñenn ñi xam nañ ko ñi ci des xamuñu ko te ñenn ñi sax dañ leen koy dem ba di leen ko jànnee wala di leen ko jëwee wala di leen ko waxee am na ñoo xam te ne ñu am feebar ñu xam mais nit ñi dañ leen koy xoole te duñ leen ko wax te loolu yëpp dafa nekk ci li nga xam ni lu ñuy faral di gis la allo salaamaaleykum waaw Serigne Lamine Bara Fall waaw man la Ibra man la Ibra laay dëkk Cambérène 1 waaw traitement Mouride Alam bi kontaan naa ci kontaan naa ci bu baax a baax baax parce que sonoon sonoon naa trop trop trop sama biir bi da doon jooy mënatumaa dem ci xew yi mënatumaa dem ci ngénte yi man wax dëgg yàlla daal sëñ bi kontaan naa bu baax a baax Mouride Alam bi sonal na ma trop trop trop trop sama biir bi da doon jooy ak lépp léegi lépp macha allah sëñ bi maa ngi lay sant nag bu baax a baax di gërëm di ñaan yàlla mu yàggal taxawaay bu baax a baax a baax moo wees alam daal sëñ bi solo na solo loon la ma lool lool lool lool waa ji mënatu maa na dem fenn fenn fenn kër gi sax munuma ko a génn wax dëgg yàlla mais isaan yi daal sant naa bu baax a baax sama biir bi da daan jooy itam sama biir bi da daan jooy sëñ bi mënuma mënuma na dem fenn wax dëgg yàlla sant naa bu baax de jërëjëf mënumaa wax sax jërëjëf sëñ bi

day yàq sa bañ sa bañ day dem ba day jaune day xal day dem ba teg beur ñi xamanteni duñu soccu duñu bros seen bañ ndax amna na xamanteni sax rat ak ngelaw sheytane mo leen ko def ñen ñi itim liggey ndax nit dina nek ci barab di liggey wax deug yalla nit ñi bëgg ko jublu ko mais day na waar am ñoo xam lay yóbbu ci sëriñ sané la nga xamni ñi la jublu won ñëppay dëdd won la ginaaw à tout moment fo tok sa yaram day xéñ te loolu itim nek na li nga xamanteni baxul loolu itim yépp maam raan dafa nek li nga xamanteni lu nit ñi di dund ndax buñ ko waxulit ki tok diñu sétante gis ci bopam du ci xam dara te du xam sax fan la jëm kon ñun exactement loolu lañ ci jublu pour informer pour sensibiliser pour dimbali itam ñenn ñi nga xamante ni dañu soxla ndimbal waaw ndax ñëpp yemuñu. o sëñ bi du li ngeen ne mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax maa ngi nuyu di leen jaar bu bëree bëri te ñaanal jàmm te di ko si yéen. dama déggoon sa pilis la si télé bi si laa jëlee woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine yi man daal daf ma sonal trop wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak euh, façon boros bu ne pat bu ne jënd naa ko bain de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla sonn naa de li ma doon dund ay at mauvaise haleine mu sonal ma witt witt witt billaahi dem naa ba mel na ku dof sax su ma seeni ni sax balaa may egsi si man laa koy nuyu wallaahi mënuma sama yitte yépp laa daggoon wallaahi azim sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd si ay bind de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallaay ngeer sax lu ne luñ na baax na rek ma baaxal sax di ko def ay benn bu sag lu ne waaye mauvaise haleine yi fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkër butéel bu man ma indil bi ma naan butéel ba muy bëgg jeex bu mel ne daa gën a yokk na yàlla ma découragé si laa doog xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye wax dëgg yàlla yàlla jàpp lañu sant yàlla billahi maa ngi waxante nit ñi normal fi mu toll nii ko sax nak wallaay gëmewuma ko nak dafa nek lu metti metti ci man untuk tok di ko xalaat ko xalaat bu baax sax ay sant yalla yalla na len yalla jàppale dal yalla na yalla fay gëna a wéral cër yi kontaan naa nekk ju bari jërëjëf. alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh Serigne Lamine Bara Fall. ça si jamu soa. waaw man la Seydou booy bu nekk Kër Massar bu amoon Mauvaise haleine Mauvaise haleine bi gis naa ci féex bu baax ndax tene na xam nga tey laay am quinze jours tey am naa quinze jours presque maa ngi toppatoo yëpp ak ak li ma waxoon yëpp maa ngi koy def maa ngi sangu maa ngi naan maa ngi suuroo maa ngi brosoo su may tëdd waaw foos yi ma ci benn yoon boo gisee boo bale bokkaaluma la xam nga nit booy faju doo gaaw gis ci changement rek nga wax waaw mais depuis bi may faju ba léegi maa ngi koy gis changement après léegi nañu déggante rek incha allah maa ngi def li ma waxoon yëpp maa ngi continuer rek dina ko continuer soobee yàlla waaye instant yi moom tene naa bu baax ndax euh, lim affaire bi lim ma sonaloon yëpp wàññeeku na waaw gis naa ci sama bopp bu baax bu baax nit yàlla nga réyoo euh, nakare wa deret waaw maa ngi maa ngi lay nuyu sa secrétaire bi bu baax merci jaam ci yow. jërëjëf Mame euh, ci wàllu li nga laaj léegi muy wàllu traitement bi traitement bu général lañ la jox. traitement bu complet la mom traitement bi du bayyi dara daf la koy fajal ci gémmiñ gi fajal la ko ci put bi fajal fajal la ko ci amygdale fajal la ko ci rap ngelaw seytaane ci walu liggéey manam duñu bayyi dara traitement général la traitement complet la incha allahu rabbi contacte leen ñu daañ leen wax nuñ koy fajee généralement dañ ci def tawfiq xewal lañ ci def bi nga xamante forfaitaire amna livraison gratuite ndax du ñepp mëna ñew ci ñun am ñoo xam wax deug yàlla ay kilifa lañu wala sen tank dafa dis mënu ñëw ñew fuñu mëna nek dañ daañ fu mëna fekk livrer len sen traitement ci sutura ñu àmbale ko jox ko suñu chauffeur mu indil la ko ba sa kër ak foo mën a nekk ci Sénégal ci àddina mën nañ xefee ba nga jot ci incha allahu rabbi am ñoo xam te ni nag mën nañu ñëw comme ñu nekk Dakar wala ñu jege ñooñu mën nañu ñëw def consultation ndax niñ leen koy defalee c'est un traitement forfaitaire ci biir forfait bi da ngay amaale consultation gratuite wala nga am livraison gratuite kon nag ñoo gi ñaanal ñëpp jàmm ñoo ngi ñaanal képp ki nga xamante ni rek am nga feebar bi ñuy wax jéem ñu contacter ñu wax la forfait bi ñaata la bi xam ne di ci am consultation am ci livraison lép nekk ci biir jox la traitement bi xam te ni du bàyyi dara ñu bëri nag dañ koy faj ci gémmin bàyyi biir ñu bëri dañ koy faj ci ci put bàyyi nangam gis juróom-ñaari bëñ wala juróom-ñetti bëñ bu ñu dindi yaakaar ne xet bi la te fekk du ci bëñ yi ñenn ñi ci làmmiñ bi lañ koy yaakaar te fekk ni mën na nekk ci biir a biir a biir a biir waaw kon nag lu mu ci mënti doon incha allahu rabbi danañ leen ci mën a jàppale defal leen ci consultation may leen ci garab jàppale leen ci ba loolu dañ ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ak aminu Serigne tuba képp ki nga xamante ni rek euh, soxla woon nañu mën na woote ci numéro yi ci ban écran bi du ma consulter Touba mais am nañ fa sama kër a ngi Touba sama këru bopp mi ngi Jannatu Mahwa ci wetu hôpitalu matlabul Fawzeyni danaka ñenti mbedd la ak matlabul Fawzeyni numéro Touba bi di 76 283 98 69 ñi dëkk Touba ak li ko wër bo leen ñëwé janatu mahwa danañ leen ci mëna dimbali bu baax a baax a baax a rabbi même bu da nga nekk Touba war def consultation daañu leen ko mën defal par téléphone Dakar dong laay consultation Touba nag ak région yi ku ko soxla daañu la ko mën livrer incha allah Serigne Ibrahima Diallo Eh, dëkk Guinée Conakry eh, wallahi sa garab yi ba ma ko jëlee ba léegi maa ngi sant yàlla mauvaise haleine bi ah, moo tax ba ma gisee si internet bi ma gis sama mbokk bu nekk Sénégal foofu ah, moo ma jox ko sa numéro ba ma koy ba ma ko yóbbante ba léegi eh, instant yi nii macha allah sant naa la gërëm naa la bu baax a baax baax baax parce que mënu ma nekk ci nit ñi ay maxi rek sol. Euh, aussi tamit euh, sama biir da doon métti yooyu noonu mais sant naa la daal gërëm naa la maa ngi lay xam naa ni sama mbokk Guinée yi nekk fii nii si Guinée dinaa lay yabal foofu ñëw foofu incha allah rabbi kontaan naa baax a salaamaaleykum.